ñi nekk sama ginnaaw mooy euh, les membres de l'amicale des personnels de l'établissement kenn si ñun koo xam ne ni jàngalekat la ñu koy wax euh, Abdoulaye Thomas Faye euh, dañ ko arrêté démb à Kaffrine ñun amicale bi ñu ne benn bopp lañ tey lépp lu laal kenn rek laal na ñëpp looloo tax ñu jóg ne nañuy manifester sunu solidarité à l'égard notre collègue qui a été et pour qui nous demandons une libération immédiate et sans condition parce que dañoo jàpp ni place enseignant du prison la place de l'enseignant c'est à l'école te ni ko Mariama ba di waxee on ne badine pas avec la vie et la vie c'est le corps et l'esprit mooy l'éducation et la santé ñu nekk ay déclencheur de comportement moo tax tey ñu ne euh, nañu jóg euh, jàppale ko pour yàlla génnee ko ci tolof tolof yi nga xam ne nii si la nekk Les informations que nous avons, ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions qu'il a été arrêté, mais dañ ko arrêté euh, au motif d'offense au chef de l'État. loolu lañ amagum comme information par rapport à son arrestation. pour le moment ñu ngi nekk ci euh, waxtaan pour xool ba xam yan action la ñu war a mën a teg pour que sunu collègue bi nga xam ne nii moo nekk ci ay tolof-tolof mu génn ci tolof-tolof yi pour le moment. Euh, tey defuñu cours dafa nekkoon euh, une journée noire à la limite maintenant nag on va discuter entre nous buñ fi jógee waxtaan pour xool ba xam ban plan d'action lañ war a mën a teg pour lui apporter notre soutien et notre solidarité. tey ci suba élèves yi comme moom daanaka dafa yoroon ay élèves yu bëri yoo xam ne nii yàlla dafa dogal dafa am liñ naan service à la communauté maanaam dafa doon def ay cours particuliers à l'école yoo xam dafa doon def gratuitement xëy na nag euh, élèves yooyu noonu nga xam ne peut-être dañu am benn devoir de de redevabilité xëy na ñoo génnoon pour manifester seen solidarité bi ñu génnee di manifester seen solidarité affaire yi dégénéré ñu sànni ay grenades lacrymogènes ñu ciy profiter dëgg la pour euh, saluer vraiment l'attitude très responsable du commissaire de Diourbel qui nous a reçus dans son bureau mais di ñaawlu également taxawaay bi nga xam ne nii les forces de maintien de la paix def nañ ko parce que ils sont entrés jusque dans le lycée pour débusquer les élèves ñu jàpp ne euh, dans l'enceinte du lycée ñëw nañ ba buntu salle des profs ñu jàpp ne loolu euh, waroon nañ ko mën a régler neneen mais bañ a peut-être bu dee mën naa ko waxee noonu profaner le temple du savoir parce que dañ jàpp ni l'école c'est le temple du savoir et dañ ko war a préserver pour que ce temple ne soit pas profané donc daal euh, jàpp nañ ci euh, des élèves au nombre de vingt 24 on a discuté avec le commissaire euh, qui nous a donné l'assurance d'en d'en discuter avec qui de droit di xool nan la ñuy vraiment mën a apaiser la situation pour libérer leen waaw. Euh, au total il y a 24 12 garçons et 12 filles.